mbokk internet SBT Média ñu ngi leen di bëggee di leen di siyaar dinañ jox seen wàccuwaay bu baax a baax di amaan bégte ak kontaan jàkkaarloo waa dëgg yéen ah émission seeti mbër ñëw fii ci Petersen sa ñëw seet si fi benn xale benn ndaanaan mu nekk ci yoon ñu naan ko Boy say ñu bàyyi ko mu nuyoo champion nuyu nañu la. waaw ñoo lay fay soxna si di la siyaar di siyaar sama gaay toog fépp di sant yàlla ba di julli jonte bi moom laa war a jëkke sax sant sama ñaari waajur waaw. Boy Seye benn xale rek bu ndaw bu nekk écurie di doomu Lambaay bawal bawal di sant bawal bawal yépp nag waaw loolu laa nuyoo. Boy Seye lañ moo ko indi ci làmb daa judd fekk ngemb bi ci biir kër gi wala lan moo ko boole ci làmb. non làmb moom fekkuma ngembul ci kër gi dama ñëw nekk Dakar ñu boole ma benn grand bu ñuy wax Njaago sama idole la waa Njaago yi kii ba jono moom laa daan teel comikaay mu di ma yóbbu mbapat ak contact géej ba far mujj mu ne ma gars yi mënatun la takkal ngemb di bëri sama premier combat ma wutal ko yàlla may ma si ndam. kan moo nekk sa idole ci làmb ji kan nga gis mu bëree nga bëgg ko ba tax nga bëgg làmb. booy sëy bi mu tudd sama bopp parce que dafa am sañ-sañ am naqar deret gëm boppam loolu la ma neexee mu tudd sama bopp parce que loolu laay dund waaw. booy sëy bu ñu bëggee xam ban nga dugg ci ci ci ci mbapat bi. non mbapat bu ma rappelé yaakaar naa ay 2010 laa commencé bëri mbapat parce que yàgg naa dem mbapat di topp njaago muy bëree mais dama daan ñëw pour forcer bëri xam mu ne mu doo bëree parce que gars yi dañ lay gaañ. mais suur may fipp di bëri ñëw ko fa dama fekk benn benn mbapat ñëwul rek ma jël ngeen bu bëri ma ñibbisi ma ne ko bëri naa mbapat ba daan fa benn waaye ci laa commencé kon ne di bëri mu ne ma kon del di entraîné mën nga ñëw fàttali fan nga njëkk a takkee ngemb fan nga njëkk a takk ngemb tey jii dugg ci diggi géew bi di mbapat maa ngi rappelé mbapatu Baye Pape fay na ko yàlla yërëm mbapat bu mu doon tëgg teeree ruus laa njëkk a bëre mbapat foofu laa njëkk a bëre mbapat Baye Pape yàlla ko yàlla yërëm la woon wala nomé tournoi la woon tournoi la woon ma ñëw fekk benn waaye yor ay sér ne xanaa ay góor newu fi rek ma ñëw jël benn sér bi bëri moom yàlla def ma daan ko. waa ji ñëw yor sér ne xanaa ay góor nekkuñu la gàddu war làmb ji gars yi war a bëri bëri boobu mosuma ma ànd ak ma ne gars ba leen moom daan boobu maa ngi jàngooto quoi ma jël sér bi takk mu takk ma bëri moom daan ko mu kontaan ci trop parce que ne ma li nga def yëfu góor la waaw benn mbër. nga ci amoon instant boobu bi nga ko daanee waaw kontaan parce que booba yaakaar naa def naa lu rëy mbekete booba fal la rek mbapat la du dara dugagumaan booba sax 100 pour cent ci làmb. Euh, mbapat yi fan fan nga toj ak bën bën nga daan boo xamante ne nii mu xam nañ ko mu nekk ci làmb ji di toj. fi mu toll nii mbapat moom li ma ci bëri bëri na wax dëgg yàlla li ma ci bëri bëri na parce que dama bëre mbapat teel a may combat nommé teel a may di ko bëree. ñaata combat nommé nga am. combat bu dee bëri simple ak bëri dóor bi parce que bëri naa ci 9 benn defet laa si am waaw bëri na neuf benn defet laa si waaw. daan. daan naa benn mbër bu ñuy wax jéggi saraat numéro 2 daan naa montagne daan naa saa reeban daan naa cité signor daan naa maam laay daan naa benn mbër bu ñuy wax kakkatar yooyu bay combat la. ñu ngi ci lamb ji di bëre ba léegi. ci ngi bëre waaw. cité signor bëri na fan yee stade rek. aral leen stade leen bëre man moom Ibamar. parce que huit combats yi quatre combats yi bëre la yeneen quatre combats yi bëre simple la. boo ko a ngi koy dégg xale bi mu wax champion bi li mu wax toj na bapat moom mooy loolu ah mais euh, gars yi bëggee SBT Média di bëggee yaay Fall Tik Tik dañu naan nañ abonné SBT Média mooy bomb euh, Boy Seye ñu ñëw ci ci sa combat arène ban at nga njëkk dugg ci arène bi. non bi mu bëree arène yàggul nag deux mille deux mille dix-neuf bi laa njëkk a bëree arène. waaw 2019 laa bëri sama 4 combats arène parce que yeneen ñaari yëpp 4 combats yi bëri reefan laa bëri ñaari combats yi bëri ñaari fii ba maar. 4 ah, combats nga am ci arène. waaw yëpp ko bëri maa daan montagne daan saa reefan daan cité signor sila moo ma daan sila buy kër jàmm gën waaw. waaw. sila moo daan combat suñu jata maa bëri sixième combat ba man moom. combat bi. waaw gëj a bëre ba léegi. laa a bëre am naa combat fi mu toll sax man a kii Balla Pout. Balla Pout. Lamb Mor Mbaye. foo fii lañ ko war a bëree ba maar dañu war na bëre corona bi tax ñu waaj que bi tabaski bi desee ay neuf bi jamono yi lañ arañ combat bi lamb bi lu ñu leen wax am ngeen date wala amagu leen date. non amaguñu date parce que ñu ngi diglu promoteur bi rek ñu ngi suñuy entraînement di meññee diglu promoteur bi rek Mor Mbaye. waaw. kan mooy grand combat bi grand combat bu kii lan waxoon armée bu ngewel waaw beneen booy bi moo dëgg yàlla jàppatuma turam sat waaw parce que boobu dama yaakaar sama combat man mooy lool combat mbër yu mag yi moomee combat du ma ko sama bis rek. fan nga ci waajtaay. lépp moom di pare entraîné chaque jour sama gars yi mooy loolu marché bi gis nga ko ñëppay jàpp. yenn saa yi damay ñëw liggéey tuuti dugg fii nelaw bu may waaj ñu jox ma dépasse ma ñibbi. mais est-ce que di bëre ba pare ne am combat nekk di liggéey tamit yomb na ak entraînement yi est-ce que yaa ngi koy jox gëdd gi. non dama koy jox li ma moom parce que tey su ma xëyoon entraîné tëdd sama kër sax bu heure lekk jotee gars yi ma yónnee avance sur sama gars bi Kaabu Gueye kii moo ma la moo may defal lépp barke Sëñ Tuubaa lu mu manqué lu ma manqué da koo amut damay tëdd fii ba mu ma ñëw ma ne ko Kaabu tey junni laa soxla damay añ mu jox ma ma dem wallaahi la sim. am nga soxna. am am naa soxna waaw. benn benn soxna. fu mu nekk. ma nga sa kër yaay toog mën nga Lambaay. Lambaay waaw. mais mais am jabar tamit di bëre ndax yomb na. non lool du dara xam nga moo gën ma bañ a takk soxna ne fii di fo topp xale jigéen yi loolu moom du dara boo gisee ma teel a takk soxna lu man loolu laay bañ. instant daal bu ñu la déggee da nga téye sa bopp merci beaucoup loolu laay def. nekk waaw ne si liggéey bi entraînement yi waaw loolu laay def. waaw gis ngeen ko loola. maa ngi Ikri Malick si Ikri Malick si xam na champion ngeen xam ñu mel ni Kati Senior su lay topp numéro xam naa ñooñu ngeen di gën a xam waaw ñooñu ñooy tedd filigir bi. bari na ay xale ay Cité Senior ñu nga fa ay Njool Séréer ñoom Fils Dambar ay booy ndaana nang fa wallaay la sim waaw am na waaw am na am na comme ñu jógee écurie Malick si dem yeneen écurie waaw ku mel ni Giri Signor fa la nekkan jóge na fa ak ay samp yooyu bare bare daal mënuma lim ñëpp jóge nañ fa dem yeneen écurie di leen ñaanal nag fan dem waaw école waaw Salañ léegi mi ngi mi kër Mpole benn baraang mbooloo ñu ñu fa la ñu entraîné non du du ki tas sax. xam nga rek ku nekk fi sa xel fa nga yaakaar fa ngay am dara fa ngay daw am di leen fa ñaanal fan jëm rek yàlla suñu borom defal leen fa li kowe seen jort dafa am sama benn rakk bu am combat fii tay seen bu Saalum pala sama nga maa ngi koy ñaanal bu baax suñu borom may ko di maa la war a bëre moo kooba di ko ñaanal bu baax a baax a baax waaw man nan dafa tara ci làmb loolu moom d'accord naa ko boo gisee loolu parce que ñàkk ginnaaw gu taxawu booy Seye di ko puus daf ci am mais dama jàpp ne man li nekk ci booy Seye ci bëre ak li ma sañan su ma mën yenn jàppale bi am na booy bari na si kanam nii ñu leen di coow ma leen fekkee fay jóg. parce que ñi ma départ noonu moom daanaka rawagun ma si laam fi mu nii ñu xaay ji ngi dem nii ci laam yi non bariwul bariwul am na ñu ma ca xam parce que mel ni ay Koña 2 sama dëkkandoo la ñoo bokk bawal parce que ñoo départ andoo ni si laam waaw ñooñu yaakaar naa Kogne Addo war ngeen ko xam moo ko waxee di ngeen ko xam ak ku mel ne salañ salañ moom ngay wax te xam naa demaguñu pour mooy lool mais maa leen di ñaanal ñu dem sa kanam nag. est-ce ci ci làmb carrément yaa ngi koy def. chaque jour maa ngi ci wallaay. làmb dafa ma mais xam nga rek làmb ji nii bu ma xasee nekk ci waar wi nii dama yor jikko Baye Fall bi mais ma duggee ci làmb ji damay doon beneen damay yor jikko mbër bi xam nga ne Petersen moom boo fa duggee di laaj mu fi am a laaj ko buñ ko yëgën ñëpp dañuy muur bagage yi dem ba mu bëree pare ñu soog koo muri wallaahi la sim. mu yàgg loolu bëreegu leen ko lan ngay wax promoteur non xam nga rek day metti si mbër mu ndaw mais dara sant yàlla rek waaw yàlla dogal na am nañu am xëy ñoo ngi xëy di dóor waar gis nga place bàyyi nii tey su ma buuroon samay bagage sax damay xëy ci bagage yi gars yi di liggéey yenn saa yi ma jaay bagage su jàmbur sax ne ko du ma la weer si jël dem lekk wallaahi la sim du mujj fenn. mais avance bi jeex na no sant yàlla rek mën nañ ne jeex na moom. mën na ne jeex mën nañ ne jeex na non ñun promoteur bu wax dëgg yàlla dañu am promoteur spécial yoo xam ne daf ñuy bëggal boppam du am bés te woowu noonu ndax pare nga pour bëre waaw kooku moom mooy lool duñ ko laaj dara lu mu def rek moo gën lu mu defut waaw. mbégte ak kontaante lay doon saa su ne sama diggante waa marché bi sant yàlla bu wér di gërëm ñëpp wallaahi la rompé ba foo am moo bi saas interdit. amul koy taxaw ne ko booy say lii mu ne la booy say defal na ma lii wala booy say defal na ma lii amul sens interdit ku ma neex ñëw sa place dugg lu ma neex bu may fekk sa poos sax ma jël ko amul sens interdit muy ndaw ba mag amul kenn di gërëm sama grand bi 14 di ko sant baax di ko ñaanal di gërëm waaw marché bi yëpp daal maanaam di jël nuyoo bi ko teg loxo Kaabu Gueye sama grand bi mu joxal ma ko gars yi marché bi di leen sant bawuma kenn ku ma tudd sa tur nag nga xam ne mooy loolu mais bawuma kenn waaw man moom wallaahi la sim musuma am combat xaye damay ñëw damay seeti mbër mu may ma ne ko pare naa naa ay combat xaye suur laa mujj laay gis mbër bi waay <laughs> loolu méttiwul <laughs> boo xaye dama xëye ba ma xëyee ba ma xëyee sama kër ñi dama rusa dem nuyu sama yaay xorom la xorom laa la toog sama ne di gàllandikoo xorom pour mën a wax sama combat ak saa reefan te wallaahi ba mu koy jël xam moo ko parce boobu mi ngi bëri sept combat reefan mu sam defet ñu xëy woo rek ma leen garaawut danay xeex di bëri ba ma xëyee ma ma ñu guddi gi dama tëdd sama ne ba xëy ma jël xorom di gàllandiko pour mën a nuyoon teeg maire yi ma génn ak sama gémmiñ ngi tojee sama yaay day am lu ko kii met trop waaw lu ma koy yóbbante <laughs> Balla Pout bi Balla Pout Balla Pout bi nga waxee sama combat ak moom dafa jógee ba Pout dagg paas man lan wax ma dem man du ma seet adversaire wallahi la sim entraînement lan ma wooye ne ma adversaire bi nga mu ngi buntu RTS di la xaar ñëwal ma ne gars yi maa ne ma xaar ñu ànd ak yow man leen noonoo entraîné leen ma dem bi may ñëw di ko seet si trois personnes la àndal ma àndal mennam kase man sóoraale ma loolu sax wallahi man est-ce que sama capacité man man jàpp naa ne man man képp ku ma tollool taxawaay maa la man parce que amul may ragal ci làmb xawaay pour man maa la man day xeex day man lépp laay def yàlla na mën a xeex yàlla na wér am i loxo yu baax mën a dóor bër bi bu xeexee bu xeexee non bu xeexee sax dama koy jàpp daan ko du ma bëree du ma fi ne di ma daw xeex bi daan ko gars yi duñ ko dóor de ku daan laaj ma ñibbisi mais bi tamit da koy safal de jaru ko jaru ko naa ko bàyyi xeex bi ma jàpp ko daan ko ragaluma loolu bu xeexeeg bu xeexeeg yow buy dóor ma koy jàpp ñibbi man jaagu jaagu mooy sama idol ndaama la gaa yëpp ko xeeb te kum jàpp dal defal bagage ñibbi man li muy bëre laay bëre ñibbi. bu bëree. jaagu laa mooy sama idol. ma bu bare laa bu bëree ma ma maa ko dàq bëre. wallaahi la sim keppaar gi ma yaroo ci bëre. su ma adversaire bi nga jël xamoo ko da nga kaa xaw suufantal ko. keppaar yi ma ci bëre. su amoon ay taxaw ñu ne ci làmb ji nii samp yooyu fi ne maa leen man mais lan moo tax sànq bi ngay wax taxawu taxawu lan moo waral amoo ginnaaw wala nan la demee noonu. xam nga bawol bawol yi ni ñuy solidaire. xam nga moo waral loolu. écrit Malick Sy maanaam mën nañ ne écrit bi tur bi rëy na mais fi mu toll booy ya fa nekk mooy loolu amuñu staff bu leen mën di taxaw di leen wutal ay combat chaque daf leen di jafe. maa ngi faak ay booy yoo xaalis am naa fa benn booy bu am combat njool séréel yàlla na ko suñu borom defal ndam day bëri le 9 janvier bi ci combat kii bi kii mooy bëri karakomba yaakaar naa fay biram ak lumisin numéro 2 yeneen booyang fa ay fils de mbaarang fa ay Mamadou Ndiaye numéro 2 ay samp yooyu bareeng fa mënuma lim ñëpp waaw bu nu booy ya fa nekk li ñuy bëre li wallahi la si samp yooyu ne ci làmb mën na leen daaxul daaxul na bëri gestu mag ñi nga xam te ñoom ñoo nekk ci écrit yi ñu jàppale leen doole leen yéen leen di jox benn gëdd bi waa war ci ñoom waaw ñoo def li war lépp ñoo ngi def war lépp xam nga rek lamb léegi dafa am kumba am ndey kumba mu am lépp parce que faw mooy ñëw taxaw la di la xëj boo mulee faaw da ngay rayante ba ba sonn. yow mais am ci làmb dañoo gëm seen bopp moo leen moo leen yóbbu fi ñu yegg tey. moonu ba fii ba tey gëm suñu bopp moonu ba ci làmb ba nëgë ni mais booy ma nekk li ñu daj ci entraînement te dañuy la mu dun bëree buñ gëmutal seen bopp ba tey bàyyi nan wallaay gëm seen bopp moo leen ba am na solo. comme li ma wax comme ñàkk jàppale rek tey man su fekkat am naa koo xaye mi ngi sës ci biir làmbu ma am bras am kumba am ndey kumba mu ndey ñu bañ ko def ci làmb di xool booy yi mën a bëri ñu leen di bëriloo. kon sax wax jooju nga wax kumba am ndey kumba amul nday fan nga teg wax jooju nga. moo am ci lamb ji da ngay gis mbër boo xaayee da leer na la xam ne amul ñaari kale yu dëgër ñaar gaa yi coow ko jàppale ko ba mu dem te du def dara ci làmb. est-ce que du bari na bari na ci mbër yi may tudd tur xam ngeen nu mu demee yéen. wallaahi la seen. non yéen xam yéen ci làmb ngeen di liggéey. wallahi mbër yi mën a bëri ci làmb ji boo leen génneen matul vingt personnes ñi ci ëpp ay ñi puus ñi ciy dem ëpp ñoo ay puus ñoo xam ne puus ñu egg mooy sa non pas bawal mbër yi Sénégal gépp am na ci ñoo xam puus moo leen di yóbbu mais du ko soo mën a bëre non jarul tudd tur soxna jaara jarul tudd tur jar non booy booy parce que booy génn lépp lépp xam nga liy yokk mbër sax mu gën a avancé comme seen kalaa gi sax def ciy doon day gis mbër moo xam du bëre sax benn combat yéen yéen a ko yëkkati ba ñëpp di ko wër. non non mais ñooñu dañuy wane lu tax ñun ñu dem jëli moo tax bi ngeen kii waxee da ngeen ma seet dama ci sant yàlla baax a baax parce que dama damay ñaan sul wax ji man ak yéen yàlla doxale fi sama tur ma génn si di leen ñaanal yéen bu baax waaw. ba léegi ñu ngi fi fay birom am na combat le 9 lay bëre le 9 janvier grand combat la am ba maar Tapha Leer mi ngi waaw xam nga làmb ji bawol bawol yi ak baaliye bi ñëpp yooyam tey Boy Seye day am combat ne Peter Serre ñooy jàppale Boy parce que fii am na ñuy seetaan làmb ñu bari boo leen waxee maam góor yu wal tafaleer duñ ko xam comme ni ma xamee mbëri bawol yëpp ñoom ñiy seetaan fii làmb ba duñ ko xam tey bu tafaleer man combat nga tafaleer ba may combat tamit am na ñu ko gën a jege ñoo xaay ñooy mee bu dem jàppale ci tafaleer man damay ñaanal mbëri bawol yëpp bawuma kenn di leen ñaanal ñu dem ba téye lamb seen loxo ci barke seen même bu dul sama loxo di loxo mbëru bawal. 100 ma la bopp man Boy Seye 100 pour cent la rek tur la nii rek bu may dégg gisuma sama bopp parce que soo bëggee dégg de man 100 pour cent mosuma dem réunion 100 pour cent bi ma ku mel ne Mbaye Saabu mi sama sama gars la sama doom ndey la sama xarit la ci moom laa njëkk a gis mu yor groupe bi ne 100 pour parce que moom amateur la. lan moo tax lan moo doo dem réunion lan la lan mooy problème ba yow doo dem. maanaam boo déggee loolu ñàkk a gis sama bopp ci 100 pour cent bi moom la parce que tey boo Seye mën na ne du mbër bu mag tey boo Seye ba ma combat 100 pour bi duñ jóg ñëw jàppale Boy Seye. beneen mais est-ce que boo amee combat di nga dem ci ñoom parce que lu mel noonu damaa jël wu leader mu wax ma ko nee na 100 pour cent yi moom gëmu ko ma ñëw jëlaat la nga wax loolu mais est-ce que yow yaa ngi dem ci mbëru euh, bawol yi 100 pour cent yi boo amee combat nga leen koy wax pour ñu lay jàppale. maanaam ndax yëg-yëg bi am nga ko ci sa diggante ak ñoom. boo boo gisee la waral lool 100 pour cent ay diggante la ay diggante la écurie Bawol ñaata mbër ñoo ñaata écurie ñoo fi nekk da nga wax écurie ko moom 100 pour cent mën nga ñetti écurie la rek pour Bawol ñetti écurie la de du yëpp. ku ba nag ñan ban ak ban. rek. non ban ak ban ban ñetti écurie yi ban ban la dañuy. wallaay 100 pour cent bi ñetti écurie pour Bawol ñetti écurie la rek. li di mbëri Bawol yëpp yëpp buñ leen booleen ñuy ànd 100 pour cent nekk dëgg ci ñoom. lambu Sénégal dañ koy téye mais 100 pour 100 pour nañ la wax la ko. moo waral gisuma sam bopp parce que woowunu mu wax ma ko. waaw parce que jàpp na ne boo say mbër bu ndaw la rek mënta may kenn dara moo tax mais 100 pour cent moo tax gisuma sam bopp. am nga ak ñoom relation yaa ngi déggante ak ñoom. waaw am na ci gars yoo xam am naa ñoom relation maa déggante ak ñoom man ànd ak ñoom luñ soxla luñ xewle dama koy wax ku ci mel ni kéwél sommee combat dama koy yëg mbay guy gi buur siin ku mel ni ay yëg sil bu ngunjaan bu amee combat dama koy yëg sarsu bus noonu fils de Sallo Mor Kanka ñoom ku ci am combat fu mu mën ne danga may wax ne ma am naa combat. mais di nga dem ci seen combat dem yëndu fa jàppale leen. amul ku ci am combat te du ma ñëw foo man bëri ji damay teew sa combat waaw waaw ku ma ci wax sa combat booy bëri ji damay ñëw. lan ngay ñu ñu ñu ngi ñu ngi jàkkaarloog lan ngay wax ñi nga xam te ñoom ñoo jiite 100 pour 100 Bawol boo amoon kàddu boo leen di wax ban kàddu lay waa ñu yemale rek 100 pour 100 bi ñu ko jiite ñu yemale bañ a xàmmee mbër bu ndaw ak mbër bu mag bis du tuut man sama bis moo ma gënal bisu Bombardier di wax Bada joon mu yemale mbëri bawal yëpp amul mbër bu ndaw amul mbër bu xañ na Boy Seye mën na nekk mbër bu gën a ndaw bawal mais nga yemale ko ak Tapha joon na xam Bada Dione xam na ma xam na ma bu baax sama digganteeg promoteur bawal promoteur sama digg Serigne Touba baax sama diggante promoteur Bawol benn promoteur laa ci amal relation muy Mor Mbaye ngewel gi production Assane Ndiaye xam naa ko nii xañ na mooy lool parce que damay jaar place am chaque jour ma dem entraînement fa laay jaar ku ni Idaali mooy lool xam naa ko nii jéey production kii nu mu producteur boobu tëgg combat jam yankaaw yi la xam naa ko ni tamit parce que ñoom ñoo bokk ñoo lànk même ñoo bokk même village sama village la dëkk ki yor sama cumbikaay yor sama lépp sama mag moo jéey jéey la xam nga ku tëgg tournoi ñoom yaa ngi am nu mu tudd. Idaali ay doomi ndey lan ñoom ñaar seen ñaar yaay bokkum ndey te kooku sama doom baale moo yor sama cumbikaay yor sama lépp. mais dafa mel da ngaa xaw a sa bopp da xaw a rëy daal duggante woo gaay yi moom moo waral. non du loolu xam nga li ma la wax rek dama ne la booy sëy mooy sama idol te dafa nekk bañkat nekk xarekat gëm boppam. li muy dund moom laa gis di ko bëgg moo dund moo tax ma bëgg ko ba def noonu. nan lay demee dégg ngeen li mu wax kon gars nañ ko gis xam ne mbër mu ndaw ak mbër mu mag yëpp ñoom ñoo yem ndax ñoom ñoo bokk benn licence bi ñuy dagg. di am mbégte ak kontaante bu baax a baax mais dafa am combat yoo xamante dañu dañ ciy jëm muy le 5 décembre muy diggante Siteu ak Papa Sow combat boobu noonu boo ñu ciy décortiquer lan nga ñu ciy wax Siteu lan mooy sansam Papa lan mooy sansam ci combat en tant que waaw combat boobu moom premier gaj Siteu ak Papa Sow waaw ku yàlla may ndam rek yàlla sa njëglaay bu ma doon man maa yow nekk place Siteu combat bi dama koy diireel an yar sori Papa saw laase xeex ak moom bu ma doon Papa saw xam nga ndaama la damay njonku Siteu bu déclassé ma dem jàpp ko bëreeg moom waaw. dem ci Papa kii Ama Baldé rek première gaj ku daan moom yàlla na sa njëglaay rek. comme noonu laa ko kii rek combat bu diiree dama jàpp ne Modou Lo moo am mais man na jaxasoo mu gaaw bëre bi gaaw trop ama am ndam mais première gën waaw combat bi supporter yi lay njëkk a waxal làmb du xare làmb mayante xaar la Tapha Tine nag Boy ñaa bu nu bëreen tey kenn gi dóor moroom mu daan sax suba ñu wootante téléphone mais damay ñaanal Tapha Tine nam ndam nag ci barke Seydina Ahmed di wax Tapha na jox bawol booli cër bi nu moom jóg boppam jox combat bi cër Tapha bu ma ko doon bu ma ko doon koosee dama koy wàccaloo ci ay tànkam dirigu topp Boy Niang fu gisee buntu dóor bu mu yooru de maamu de yàq làmb consulté wu ma combat ba Boy Niang sama yoon ñëwut ci moom Tapha faral. bu joxee bawol bawol yi cër lan la da leen joxul cër. non jël combat bi jox ko ne combat moomu ko combat bawol la li ci war lépp mu def ko ci combat bi li ci war lépp mu def ko jox combat bi cër wàccaay tànkam diriku bëreel nu sunu làmb waaw sinon mu àndu ngemb li ñu dem bëre combat bi. waaw loolu booy say wax mais euh, émission yi balaa moo jeex day am ay questions réponses ñiy wax Balla Gaye 2 ban année la jël euh, la jël roi bi ci Yékini. Balla Gaye Yékini c'est du non 2012 2012. 2012 est-ce que Sénégal am na premier premier ministre. Sénégal on oh, amul premier ministre amu ko non non. président États-Unis nan la tudd. wax dëgg yàlla xam nga nu mu tudd xam nga nu président États-Unis tudd non non. président assemblée nationale. fii Sénégal est que du Moustapha waaw yow na Moustapha Niass la tudd. noonu la demee mbégte ak kontaante lay demee ñu bàyyi ko dernier kaddu yi parce que waxtu baa ngi xëccu dem ci jeex ñu bàyyi la sa dernier kaddu rek nga jaanale ko. waaw sant yàlla baax a baax a baax julli jonte bi sant waa seen gépp nag kaw ba suuf ba ma kenn di sant kaar bu Gueye bu baax a baax a baax di gërëm di ko ñaanal li mu ci kanamam moo ko xam yàlla ko suñu borom defal ci bar seen naamet di gërëm sama gaay yi mënuma lim ñëpp. waaw yokku gaay ay vi di leen ñaanal mu dem ba nekk ay tale di gërëm bële sama booy bële laay njaay bu waali sek sama poulet la ma ngi koy ñaanal baax bi combat bi taxawee yàlla xam na ne deux mois la ma jëlal añ maa chaque jour añ mooy fay sama yaay booy ndey saal mi ngi fi ginnaaw ndékki lay jaay xamul lu mu wax ba kere combat bi jàll bu fay ndekki lu la neex commandé lu ma neex laay ndékke mu ragal mi ngi ci ginnaaw sunu yaay ndey saal lu ma neex ndékkeel la lay wax bu ragal dara wallaay la sim waaw bawuma kenn waaw aca mbégte ak kontaante noonu lay demee ah booy sëy lañ amoon di leen sant yéen di leen gërëm bu baax a baax a baax di leen ñaanal seen sit bi yàlla na dem ba nekk ay télé ci barke Seydina Ahmed di gërëm maam jaaram yi sama jigéen la man ak moom ba may jàngooto ba may laawe centenaire ba léegi man ak moom yàgg na waaw lu ne la waxante lu ñuy déggante du toog kenn du mer man moom noo centenaire centenaire laa doon laa doon laa doon raxase oto fa la nekkat laa nekkan ci moom di ko sant baax a baax di gërëm bawal gépp di gërëm waaye kiri Malick gépp nag di ñaan Sénégal lamb ji ñu bàyyi ko mbaam ndey jakku mu ndey ji amul ndey ñu ñëw jàppale booyee ci suuf ñu yéeg parce que ay samp yoon ci suuf yoo xaye wallaahi mënoo téye lamb ëllëg bu leen gars yi jàppalee bu leen jàppalewul nag dañuy dem ba mujj découragé ba parce que ñu bari découragé ci lamb ñàkk jàppale moo leen bàyyi léegi gis mbër mu génn ci lamb xew ñëpp di ko coow mu am ñaari saison bàyyi parce que ñàkk ay jàppale moo ko moo ko ciy kii moo ko ciy dugal di ñaanal ñëpp nag yéen di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax di la ñaanal yow soxna Faa yowit sunu borom defal la mag def am njëriñ ba Sëñ Tuubaa dem ngeen dem am seen télé bopp di ñaanal da ngeen di di jéem a yëngatu wane seen bopp ndax nit ñi xam leen bàyyi leen kumba amul fi nekk dañoo prouver nit ñi xam leen du dëgg góorgóor leen ngeen wane seen bopp ndax toog sa ruq rek du tax nit ñi xam la da ngay fexe di dem lamb di demal nit ñi ni ñi di la xam di créer say coow bop nit ñi di la xam loolu dafa toll ci lamb instant bi lamb moo toll foofu da ngeen di créer ay coow ay bës xoolal xale yi fi nekk dañuy man daal bëgg naa xale yu mel ni ay ñoom Louise Ndiago ay ñoom Laurent ñoom Plateau ñoom borom Daaro xam nga créer moom mooy loolu <laughs> mais mbégte ak kontaante di bëggee Soxna Diarra di bëggee Idi sama seex di bëggee mbokk internet yi ñëpp rawatina waa diaspora bi 37 mafia yi ñu ngi leen di bëggee tamit bu baax a baax mbégte ak kontaante émission seeti mbër beneen champion beneen émission ñu ngi leen di bëggee bu baax ba beneen yoon incha allah.